jërë ngeen jëf mbokk yi ci topp geeg teelu bi la voix des sans voix Walfadjri jërëjëf ci topp gi journal bu 14h di ñaari waxtu ci bëccëg mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen magasin bi la di la mi journée tey ñu am mbégteeg bànneex dalal docteur Abdoulaye Niane mu nekk njiital parti Teranga Sénégal nekk itam coordonnateur général bu comité exécutif national bu coalition jot na docteur Abdoulaye ginnaaw bu ñu nuyoo ñu bàyyi la nga ñuy seetaan. salaamaaleykum euh, euh, monsieur Tine maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp. ñu fàttali ne en tout cas yow inspecteur euh, principal des impôts et nga woon ci jamono nekk itam fiscaliste et consultant international enseignant chercheur mu di jàngalekat ci université Alioune Diop bu Bambey ñu door suñuy laaj ak tontu jumale ko ci wàllum mbas mi leen di Covid 19 ak jamono ji nga xam ne nguur ak Sénégal ci la tollu jamono ji mu am yoo xam ne sax ñu ngi koy gën a seerewaat ci ay dogal yoo xam ne jëloon nañ ko bàyyi ko ci ay jamono tey ñu nekkaat ci naka nga ko gisee ci jamono ji nga xam ne ñi ngi jëm ci ay feet te ñu bare bari ci lañ doon mën a gis seen bopp ci wàllum koom. waaw xam nga li ñuy wax rek mooy euh, gouverner maanaam bu fekkee da ngay jiit da ngay jiite da nga war a bàyyi xel euh, li ñëwagul euh, mbas mi génnagul woon ci àdduna bi te xam nga àdduna bi léegi daanaka benn dëkk la kon Sénégal bi ñu demee ba mbir yi di wàññeeku waruñu woon a jékki-jékki rek commencé di def ay déclaration naan ñun ñoo raw ak niñ ko gérer dafa baax ak yu demee noonu non dañu waroon a euh, bàyyi xel ci li xew ci monde bi ba pare jëlaat euh, suñuy matuwaay ba mbir mi buy ñëwaat parce que nit ñi doon nañ ko déclarer spécialiste yi doon nañu wax ne mën naa am mu am ñaareelu vague ñaareelu vague boobu nag dañ ci waroon bàyyi xel ba actuellement duñu bett malheureusement gis nañ ne état bi ñi ko ŋànk ca kaw ba ci suuf bari woon na ay manifestations yu ñu doon def yoo xamante ni ñoom sax woneetuñu woon euh, farlu ci euh, jël mesure barrières yi maanaam sol masque yeeg xaw a sorenteeg yu demee noonu kon loolu euh, dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy ŋàññi ñaareelu aspect bi mooy dañu wax ne ñoom dañu wax bi ñu génnee ci première vague bi ne dañuy gënal doole kër docteur boobaak léegi nag daanaka gisuñu yenn mesure yu am solo yu ñu def ci centre de santé yi wala hôpitaux yi wala district sanitaire yi wala dara au contraire même gestion que avant Covid bi la te Covid bi daf ñu waroon a yee ci lu bëri ñu jël suñu matuwaay kon dama jàpp ne lii yàlla na ko yàlla arrêté mu bañ a sori wante euh, malheureusement période bi mu ñëw au lieu que ñu gën a euh, dëgëraata suñu laxasaay daf ñu fekkoon ñu mel ne euh, gouvernement bi moom ak chef de l'État li ko arrangé woon ak ci li mu nekkoon mooy politique politicienne pour élargir majorité am gën ko yaatal gën a euh, gën a defaraat nguuram plutôt que defar Sénégal ak réew mi. li ñu ci doon def da nga ko xeeb 1000 milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci wàllum aide bi nga xam ne moom lañ doon joxe ak yooyu noonu di ko distribuer partout loolu yëpp da nga jàpp ne dafa nul. non euh, xeebu ma ko euh, baax na ndax 1000 milliards yooyu suñu budget la mais li amoon solo mooy li nit ñi wax cest à diir bi ñu génnee ci mbir mi 1000 milliards yi ñu won Sénégal yi fan la dugg loolu d'abord dafa amoon importance buñ ko wone woon ba mu leer tey buñ nee sax dañuy jël budget bi yëpp def ko ci kenn du am sikki sàkk mais xam nga déjà bu fekkee ne da ngay gouverner te léeg-léeg ngay def fay acte lu mel ne le quart du budget nga jël ko def ko ci lu mel nii vingt cinq pour cent du budget nga def ko ci lu mel nii ba pare bi ngay def reddition de compte maanaam wax fan la xaalis bi dugg waxoo lépp wala li nga wax leerul xam nga loolu déjà day indi day indi jax-jax ci xelu sénégalais yi donc loolu dafa amoon solo ñu leeraloon ko maintenant comme li ma wax euh, xaalis bi ñuy jël subvention euh, yu mel noonu di ko def ci économie état di ko def loolu euh, bu koy def daanaka day wallu rek bu nit ñu sonnee mais pour nga defar économie dëgg dëgg dëgg da nga war a xool yëkkati sa bët nga xool ci kanam nga nga nga sànni ko ci kanam tuuti defar même période bi ngay defar sax mën na metti mais jour boo paree rek. day daal di sottal lu baree bari pour ñun ñiy dund actuellement génération bi ak suñu doom yi ñëw ëllëg loolu la ñuy xaar ci état surtout état boo xam ne ci réew sous-développé la nekk. Mm. parce que mbir yi mënta neex tout de suite buñ ko waxee dañuy wax lu ñu neex. il faut que na xool exactement. non moyen terme waroon na xool moyen moyen et long terme. c'est-à-dire que fii ak juróomi at ak fukki at lan la Sénégal di doon parce que ñoom dañuy annoncer ay chiffres deux mille trente cinq léeg ñu ne deux mille vingt trois mais li ñu def yëpp. daanaka du leer problème bi mooy actuellement dañu wax ne Covid bi wane na ne àdduna bi bu bal tàkkee rek ku nekk day daw dugg sa nekk États-Unis tëju na Europe tëju biir Europe sax ñi ngi tamante dem entre Italie ak yeneen dëkk yi gis nga ni mu méttee woon euh, gis nga Royaume-Uni moom daanaka génn na Europe et cetera et cetera Russie ma nga tëju moom itam côté am di di di di di xool nu muy nu muy yaatalee dooleem donc réew yi actuellement dañu changer configuration ak Covid bi ñun nag réew yu néew doole yi nekk Afrique nga xam ne dañu yàgg noot Covid bi dañu ci waroon a profité pour que nooteel googu mu jeex une fois pour toutes te li ñu ko doon defee nag amoon nañ moyens yi ni ñu ko doon defee mooy fexe ba li ñu soxla ñu koy bañ a jéggaani di ko amee fii ci suñu réew par exemple mbay mi encore une fois. dañ ciy wax te duñ ci dañ a wax euh, téeméeri nit yu nekk dañu wax ne juróom fukki nit yi ñu ngi ci mbay mi hmm. maanaam moitié population bi ñaari nit yoo gis kenn ki ñu ñuy liggéey kenn ki mu ngi ci mbay mi te mbay mi indiwul lu mat vingt pour cent ci koomu réew mi maanaam téeméer bu nekk ñaar fukki yi jógewuñ ci mbay mi ça signifie que juróom fukki nit yooyu ak ñi nekk seen ginnaaw ñaar fukki yooyu rek moo leen di dundal. Mm. ça signifie que donc ñooñu daanaka dunduñu. ñoom xam nañ ko moo waral itam ñu yokk ci bu baax a baax subvention bi ñu ci doon dugal ak yeneen i mbir yoo xam ne doon nañ ko dugal ci wàllum mbay mi loolu yëpp gis nañ ne atum ren ji dañ ko yokk ba sax ñuy ndamoo wàllum récolte mu di li nga xam ne moom la ñu góobee ci mbay moom léegi ni yokk. waaw oh, xam nga wax naa la ko sànq nee naa la euh, loolu subvention déjà. bis bu ñu ko defee rek loolu du économie loolu du loolu loolu mënul signifier économie complètement subvention benn pàcc la rek te daanaka daanaka mooy nga fekk ku tëdd euh, bay bëgg a dee nga nga piqûre ko pour mu jóg loolu mooy subvention mais pour mu dund dëgg dëgg dëgg leneen ngay def lu dul subvention euh, mbay mi dañ ko war a préparer pour ñu am jiw bu baax te loolu dafa mel ne jeex na Sénégal en tout cas Bawol ak Kajoor gi nga xamante ne ni xool naa seenu mbay ren ci mbirum gerte mbay mi amoon nañ ci yaakaar malheureusement amul lu mu lu mu joxe booy xool sax statistiques yi euh, euh, kilogramme yi ñu am à l'hectare booy xool ci zone yooyu daanaka da ngay jël boo jëlee lu mel lu mel ne Kolda wala Sédhiou wala yooyu da nga koy diviser par deux euh, pour pour pour pour nga am fii maanaam daanaka ñee bu ñu amee ñaar fii benn la ça fi que semence bi baaxul intrant yi baaxul intrant agricole yi baaxul loolu nag jàpp naa ne lenn li ko indi mooy suñu gerte gi nga xam ne dañuy bàyyi chinois yi di ko jël di ko yóbbu te euh, xooluñu loolu nu muy demee daaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbirum euh, xolli gerte bi di ko di ko di ko nal pour mu indi euh, pour mu indi diwlin ñooñu liggéeyuñu ndax chinois yi dañoo ñëw di jënd prix gerte gi prix bu gën a cher boo xam ne ñoom buñ ko defee duñ dem loolu nag li muy indi mooy filière bi ci boppam moom lañu moom mooy dee Sénégal bu ñu deful ndànk fii ak at yi di ñëw ndaxte gerte gi c'est vrai que paysan bi bay war na ci am dara mais ki nga xamante ni aussi ma nga ca kër ga di xaar pour nal gerte gi def ko benn huilerie transformation agricole boobu dafa am solo lool ci réew mi ndax après dina fexe ba li ñuy jéggaane maanaam diwlin bi ñuy jëndi à ñu mën ko am fii ci réew mi te diwlin bi nga xam ne ci gerte la jóge ñëpp nee nañ moo ëpp qualité moo gën a baax fuuf diwlin bi nga xam ne xamuñu ay solo kol kolsaak yu ma xamul moom la ko tubaab yi defaree. kon da nga xeeb li nga xam ne moom la ñu koy jëndee atum ren ji ndax yokk nañ ko. no deux cent cinquante francs wax nañ ko mais problème bi mooy euh, filière bi ci boppam la ñu war a assainir defaraat ko xam nga boo ko jëndee deux cent cinquante nga bàyyi chinois bi moom ñëw ak trois cent trois cent cinquante ça signifie que sénégalais bi du mën a jënd. surtout ki nga xamante ne nii dafa bëgg def transformation pour huileries yi du mën a jënd est-ce que ñun Sénégal soxlawuñu huileries yooyu. est-ce que junni junni nit yooyu di liggéey ci loolu waruñu leen a protéger parce que suñu mbay pour mu jëm kanam il faut ñu bay noor bay nawet il faut ñu maîtriser production agricole yi nga xamante ne nii noor la pour que baykat yi mën a am choix def gerte def yeneen lujum wala ñu def horticulture maanaam ay mango ak papaye ak yu demee noonu il faut ñu am choix boobu bu ñu ko amee dafa mel ni itam bu ñu dégg des fois ñu mel ni yéen ñuy wax fi ñuy gën a concentré mooy ci gerte geeg dugub ji nga xam ne xëy na ci seeni zone lay nekk yow mi dëkk Bawol ak ñi nga xam ne ñoo dëkk Saalum ak yooyu noonu mais am na mbay mu nga xam ne ña ngi koy def au nord du Sénégal te pourtant mi ngi am lu muy indi autosuffisance en riz lañ waxoon mais gis nañu ne en tout cas ceeb bi mi ngi gën a yokk bu baax a baax ci ça moo wax la lenn gis nga Sénégal amul benn partie Sénégal boo xam ne waruñu fee mën a bay noor loolu il faut ñu génne ko ci bopp nit ñi cest à que suñu sous-développement bi loolu bokk na ci raison yi Euh, c'est pas parce que dañu dëkk Bawol wala dañu bëgg Kajoor wala dara déedéet gis nga Sénégal yëpp yàlla dafa ñu may chance ñu am suuf su baax am ndox moo xamante ni soriwul te bari na. loolu bu ñu ko defee suñu bopp rek fexe ba ndox moomu nit ñi mën koo jëfandikoo foog naa développement dina am c'est vrai que am na ñuy bay ci vallée bi am na ñuy bay Anambé am na ñuy bay feneen mais même ñooñu ni ñu leen war a taxawoo des na en terme de d'intrant en terme de de de présence de technicien ay parce que dafa am nit ñu màcc. ci mbay ñoo xam ne dañoo war a ne xas ci monde rural bi nga xam ne loo soxla dinañ ñëw defal la ko ñu fexe ba mu nekk loo xamante ni du metti ci baykat bi dafay coopérative agricole te ñu gëm ko ñi koy def gëm ko parce que dafa mel ne Sénégal li fi li fi manqué année yi yëpp mooy yërëm baykat yi hmm. gars yi dañuy def seeni i wax seen i chiffres wax communication presse ne mbay mi dox na Euh, production euh, riz bi dox na demoon nañ fi sax ba wax autosuffisance en riz. Mhm. or man bi ma discuter ak yi nekk ci vale bi neenañ nañ ma boo jëloon dex yi fleuve Sénégal nga def ko ci jéeri ji maanaam ñu bay ko mhm. doo am autosuffisance en riz ci conditions yi ñu nekk nii c'est-à-dire que c'est c'est extrême c'est catastrophique. da jàpp ni ñu ci wax daal xamuñu dara wala ñu war na impliqué. dëgg non xam nañ ci dara xam nañ ci dara mais dañuy waxee seen seen seen seen bakkan. Mhm. dañuy waxee politique politicienne dañ dul waxee. Euh, ci bëgg a defar réew mi réew mi il faut ñu am parler vrai wax nit ñi li war a am def ko même bu dee metti nit ñi dinañ ci ànd parce que xam nañ ne euh, loolu rek lañ mën a jaar soixante ans juróom benn fukki at depuis indépendance ba léegi ñoo ngi tourner en rond même cercle yi la boo demee ci monde rural bi façon yi ñu doon bayee démb moom la ñuy bayee tey problème yi ñu doon am naan nawet bi doxut ak euh, dama jënd jiwu te jiwu bi baaxul maanaam amul dara lu ñu maîtriser boo demee ay réew yu mel ni Israël tey jegewuñoo am sax dix pour cent ñun li ñu am ñoom amuñu ko ci suuf ak ci ndox mais fa la mbay gën a doxee ci àdduna mbay dafa dépassé nga naan xaaral mu taw wala sama suuf sii dafa yàqoog yàquwul mbay dépassé na foofu léegi sax euh, mbayum surface euh, léegi dañuy bay ci kaw moom la nit ñi def te loolu yomb na boo demee fii euh, en Espagne rek ay îles Canaries yu demee noonu da ngay fekk nit ñi di di di di def agriculture yooyu di am ay une production extraordinaire ba finalement sax daanaka dañ koy yàq léegi nag ñun pourquoi suñu état yi mënuñu développer agriculture bi ci anam yooyu mais xanaa di defar ay milliards nga dem jam ñaajo sànni ko fa alors que agriculture bi boo jëloon milliards yooyu def ci dinga nga transformer monde rural maanaam di nga ko changer mm-hmm. génération yi di ñëw ñoom dinañ construire hôtel yooyu. parce que ne mën na nekk pilier kon. ngir a mais c'est le pilier problème bi mooy gis nga nit ki bu fekkee da ngay jiite doo xool li am États-Unis wala France nga ne naa ko def Sénégal tey tout de suite. Euh, benn hôtel ñaari hôtel ay route ay infra non non non non infrastructure yi am na solo mais da fekk fi réew mi toll nga tàmbalee foofu di yëgal niveau bi d'abord li ñu soxla Sénégal tey mooy formation ñu former nit ñi ba ñu xam formation dans les métiers de qualité par exemple agriculture bu fekkee da nga dem Xombol euh, euh, wala euh, Touba Toul wala nga dem Kaffrine boo fekkee da ngay bay nga mën a am ay techniciens yoo xam ne dañuy ñëw di saytu li ngay bay ba pare ñu jàng ko jàng bu leer loolu nag il faut les former en quantité suffisante et adapté leur formation maanaam li ñuy jàng méngook li nga xamante ni Sénégal mi ngi koy def tey bu fekkee danga danga am jiw bëgg a bay mais war nga mën a am benn contrôle bu ñu la defal ne la jiw bi baax na wala baaxul mais aujourd'hui tey boo bu fekkee da ngay bay en tout cas bu fekkee yow xam nga ni ñuy béyee ci àll bi da ngay dem jënd gerte rek daal di suul ci suuf. ci poudre suul waaw daal di def ci poudre suul poudre bi doo xam ban façon poudre la gerte bi doo xam ban gerte la xamoo boo xam est-ce que méngoo naag suuf si wala méngoo wuñu amul kenn ku lay saytul li ngay def boo paree Euh, franchement monde rural dañu leen a bàyyi noonu te àdduna passé na foofu tant que nag ñoo ngi ci loolu ba pare nekk fi di làkki tubaab di wax ay chiffres du ñu dem. chiffres yooyu la sax ci la ñuy dugg ndax assemblée nationale gis nañ ne ñi ngi natt gafakaay nguur gi ci atum ñaari junne ñaar fukk ak mu deet mi ñu dëgmal ñu wax ne ñeenti junniy milliards yu tegal juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti millions ci sunay koppar moom lañ ci nar a dugal ci atum ren ji eh, at mi ñu mal kon ci gafakaay nguur gi ndax loolu jàpp nga ne doy na ngir ñu mën a yëkkatiwaat koomuk Sénégal waaw xam nga comme Sénégal moom li ma la wax rek c'est-à-dire que du ay chiffres du xaalis moo koy yëkkati boo jëloon téeméeri junni milliards nga jox ñu ko te teguñu ko ci yoon duñ dem euh, mbir mi man li fi may concentré wu du budget bi fi mu toll ci quantité fi may concentré wu mooy politique yi ñuy def ak nit ñi koy def ban façon la mu nekk nit ñoo xam ne euh, nit ñu wér lañ dañoo bëgg Sénégal développé ay gor lañ yoo xam ne dañuy am enjeu maanaam bu ñu la tegee ministre wala ñu teg la député da nga naan man kat lii bëgg naa ko def ngir sama réew boo paree ci loolu nga dem liggéey euh, tant que amuñu loolu Sénégal du développé maintenant booy xool chiffres yi loolu budget bi recettes yi la. Mm. dépenses yi déjà il faut ñu contrôler ko. te pour nga contrôler dépense euh, semaine passée rek fête nañ euh, journée mondiale contre la corruption pour nga contrôler dépense il faut nga génn fi corruption il faut nga génn fi malgouvernance il faut que nga yemale say dépenses. loolu yëpp eggaguñ foofu. institution yi ñu ngi liggéey mu di ay OFNAC ak. waaw mais yow euh, xam nga bu baax institution yooyu daanaka journée euh, semaine bi yëpp doon nañ ci wax institution yooyu dañ ko créer rek mais efficacité maanaam dox bi mu war a dox doxewul noonu maintenant beneen aspect bi nga war a am ci budget bi mooy nga xam fan ngay jëlee budget boobu bu fekkee ci lempo yi nga ko war a jëlee. parce que l'impôt yi mooy indi euh, pourcentage bi gën a bari ci budget bi l'impôt yi tey dañoo nekk ci monde boo xam ne Covid. moo fi am dañoo nit ñi dañoo feebar économie bi dafa feebar munoo jël impôt yu bari ci économie boobu ndax eh, eh, eh, l'impôt da nga war a fekk nit ki di liggéey nga ne ko comp jël ko pour état bi ba pare bàyyi nit ki muy dem muy continuer di dem muy jëm kanam donc loolu mooy loolu impôt loolu la war a def impôt warul bloquer nit ñi te dañoo nekk monde boo xam ne actuellement suñu entreprise yi ak entreprise yi nekk ci monde bi dañu nekk en compétition te ñun amuñu doole donc bu ñu jàppalewul suñu entreprise bi suñu tissu économique bi malheureusement ñële dañuy écraser gis nga euh, statistiques yi ANSD def maanaam agence bi saytu euh, statistiques yi nee na presque quatre-vingt-douze pour cent entreprise yi nee nañ Covid bi laal na leen sa signifie que dañ leen war a jàppale maintenant buñ leen dee jàppale ba pare état bi di sëf direction générale des impôts et domaines ah loo xamante ni attanu ko même période normal période bii nga ne ko demal nga jëli loolu ci biir économie bi da ngay nasaxal économie bi ñu tekkoon dafa bëri jamono mais dafa bari dafa bari booy xool loi de finance bi en tout cas li ñu projeté hmm. euh, voté guñu ko complètement mais li ñu projeté ma gis ko bari na ay impôt yu bees yoo xam ne war na ay taxes yu bees ak yu mel noonu yoo xam ne war nañ ko jël peut-être dañoo jàpp ne domaine yooyu euh, du domaine prioritaire bu Covid bi laal boo gisee aussi loolu am état Sénégal dafa signé avec FMI li ñuy wax instrument de coordination des politiques économiques ICPE 2019 début 2020 la entrée en vigueur ICPE boobu dafa bokk ci li mu wax senegal ne ko am nga téeméer bu nekk ci économie bi ci koom bi am nga juróom yoo ci war a mën a jël bool mu nekk ay impôt maanaam da ngaa war a yokk sa taxawaay ci mbirum impôt bi loolu peut-être avant Covid bi mënoon na nekk euh, lu lu lu luñ mën a nangu mais Covid bi dafa changé donne yi malheureusement loolu yëpp kenn révisé wu ko gars yi fi mu ne nii jàpp nañ ne war nañoo mën a yokk recette fiscales yi or loolu mënul nekk da ngay sonal nit ñi ci contrôle sonal nit ñi ci seen activité économique au moment où yaa ngi jël tourisme bi ak lu mel ne restauration yooyu nga ne da nga leen di jàppale mais boo jàppalee deux secteurs yooyu yeneen secteurs yi nërmeelu amul sens deux secteurs yooyu d'accord naa ci jàppale bi mais secteur yëpp la ñu waroon a jàppale tey fi ñuy wax ne fa la ñu bëgg ak deux at yi ñu dëgmal mu di taux croissance bi ñu yëgalaat ko presque fa mu àggoon mu di ay six sept pour cent mënul nekk. xam nga li tax mënul nekk euh, li tax yàlla mën na lu ne hmm. mais li tax man. Euh, du ma d'accord ci loolu actuellement ci élément yi ma yore hmm. mooy bi ñuy wax loolu gisaguñu woon deuxième vague Covid bi depuis bi deuxième vague Covid bi sax waroon nañoo taxawaat wax ak sénégalais yi ne leen li ñu doon xaar mënul nekk déjà parce que frontières yi dafa commencé waat fermé wu Euh, donc dem ak dikk bi dootul yombati li ñu doon jéggaani di ko jëndi day gën a cher euh, te ñun amuñu ko fii donc entreprise yi ak nit ñi pour am ko dañuy gën a euh, defaat xaalis ci loolu mm-hmm. donc mbir mi day gën a metti encore mën na am nag yàlla suturaal ñu te loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mm-hmm. li ñu bëgg mooy réew mi jàngoro ji ak coono yi mu nekk ñu génn ci moom la ñuy ñaan mm-hmm. mais pour ñu am ko il faut ñu gëm suñu bopp defaraat suñu koom defar ko ci anam yoo xamante ne nii duñ nax sénégalais yi te duñ jékki-jékki di joxe ay chiffres parce que jóge ci moins 0,7 pour cent moins 1 euh, pour cent daal ne da ngay daw rek egg 2021 à 5 pour cent loolu ku ko wax xam ne waxoo li am te anam yi nga ko nar a defee du anam yoo xamante ni mën nga ko leeral tey jii donc suñu économie ñi ko yore ngir yàlla nañ wax ak nit ñi dëgg te euh, doxal ko ci yoon ndax ñun kat xam nañ économie ni muy doxee mais xam nañ ne lii ñuy wax teguñu ko ci yoon teguñu ko ci xam-xam. ñu wax ci leneen lu nga xam ne sax euh, tax na nga ñëw fi mu di wàllum politique ndax gis nañ ne coalition jot na yow yaa yaa nekk coordonnateur général euh, bu comité exécutif national bu coalition boobule euh, mu bëri ñu nga xam ne fàq nañ ca làng jóge fa daal di bàyyi dem ci leneen lu nga xam ne xëy na seen yëfu bopp la coalition bi naka lay def jamono ji ngir mën a dund départ yooyu. waaw xam nga bon wax naa ci waxaat ci li may wax rek mooy coalition bi. pas-pas moo ko samp. Euh, dañu ànd ngir liggéeyal Sénégal li may def nii sa kanam tey euh, bokk na ci loolu. bi coalition bi demee ba léegi sax ci lañ gën a jël suñu responsabilité gën a communiquer parce que avant euh, peut-être dañu nekkoon ci coalition boo xam ne amoon na njiit amoon na ñu gën a dëgër ci liñ gis ñu cëral leen toog di déglu doxalinu coalition bi de façon globale léegi nag bi ñu demee ba ñun ñu des ci suñu tànk dañ koo gën a baral suñu xalaat ñu gën ko fësal pour sénégalais yi xam ne lii la ñu bëgg lii la ñu am comme ambition te jàpp naa ne depuis bi ñu ko commencé def ak léegi ëpp na weer nit ñi gën nañ xam fi ñu jëm gën nañ ñoo jox euh, bopp euh, à la sax ñu bari dañ naan ñu lii yeex ngeen ko def donc ñun amuñu benn problème bu ñu sañoon nag kenn du dem mais nag ku dem itam ñu continuer euh, wolof daf naan àndandoo neex na wante koo bàyyi mu dem ak euh, ay wagam ay mbagam ah loolu la wolof wax sama wolof nag mën naa am euh, bawol bawol la mais leerul trop mais loolu loolu mooy loolu mooy loolu moo am actuellement ñun ñoo ngi dem te dem bi ñu dem amuñu ci benn xeliyaar li ñu intéressé rek mooy won sénégalais yi li war li mën a nekk. sànq yaa ngi may mais luy naaw say dong di ruus itam fa nga jëm du sori. ah non non non ah au contraire nature bi dafa laaj renouvellement donc yi dafa war a ruus pour nga mën a dem ah adduna noonu la boo gisee garab yi. da gis ne dañuy jëkkam yàgg feuilles yi daanu xob yi daanu mu daal di mu daal di indiwaat xob yu bees. ñun lool loolu lañ soxla ah, moom ñu fay dégg sax ci seen coalition boobu lee Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye. justement loolu mooy xob yu bees yi loolu mooy xob yu bees yi justement. est-ce que loolu acté nañ ko. non ñoo ngi ci. Euh, parce que ñun euh, foofu nag euh, li ñu gis mooy coalition bu ñuy constitué waat surtout par rapport à fi ñu jógee nii lu ñuy constitué waat dañ koy def ci base yu dëgër def nañ benn communiqué de presse ne toog nañ. waxtaan nañ euh, lu dul benn du ñaar waxtaan nañ bu baax xam nañ ne war nañoo mën a ànd ngir Sénégal ñu euh, jàppale nit ñi wax li xew euh, lu baax ci gouvernement bi ñu ne lii baax na lu baaxul ñu teel ko dénoncé ba ëllëg sénégalais yi xam ne am na ñu xamoon te wax nañ mooy li may def nii actuellement. Mhm. loolu ci lañ nekk léegi nag dinañ def benn programme boo xamante ni élection locale yi moom la ñuy Euh, teg ci kanamu Sénégal yi. local yi moom xamaguñ kañ la daanaka. waaw xamaguñu kañ la parce que ngeen di sàkku ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee respecté date beeg yooyu loolu ngeen doon sàkku. nekk effectivement effectivement euh, parce que loolu dafa bokk ci consensus bi. maanaam bi président de la république woowee kujje politique gi lenn li nga xamante ni tënkoon nañ ko mooy élection locale yi mu am ci ñetti weer yu njëkk ci deux mille vingt et un ba léegi nag gisaguñu euh, lu luy leeral loolu. mu tax moo tax mu bokk ci li ñu wax ne war na leer ndaxte calendrier républicain maanaam kañ la élection di am cim réew dafa bokk ci démocratie dafa kooku kenn nit waru ko yore même bu dee président de la république warul moom kese mu tëju xam kañ lay kañ la ñuy def élection. ndax loolu mën na nekk. comment mën na nekk ñu amal ko ci ab biñ ko war na amal. xam nga xam nga loolu loolu loolu man du ma du ma yorewuma état yorewuma structure yi mais dama xam ne état moom su fekkee ne taxaw na ci dara euh, def ci matuwaayam. même bu nekkul ci ñetti weer yu njëkk yi mais mu nekk aussitôt après c'est-à-dire que xam nga duñ ne nañ ko def nañ ko def mm. il faut ñu def ko ci anam yu baax mais état war nañ ci def kemtulaay kàttanam mm. pour que calendrier républicain ñu respecté ko parce que loolu dafa ànd ak démocratie démocratie du wërwërloo du du du du du bett nit ñi démocratie dafa am solo ndaxte fi mu ne nii ñi ngi wax Covid wax nañ problème yi am ci Sénégalais yi mm. est-ce que Sénégalais yi d'accord nañ ne ñii leen di jiite ci gox-goxaat yi mën nañ leen a iir ci co ci Covid bi mën naa am d'accorduñ ko donc il faut nga may leen ñu seet ñeneen wala ñu maintenir ñi fi nekk. Mm-hmm. mais loolu sénégalais yi rek ñoo ko mën a wax. coalition jot na am na ñu ma fay wax ne en tout cas euh, c'est pas acté encore ñi nga xam ne ñoo fa ñëw pourquoi mënu leen ci communiquer lu leer que ni ñëw nañ wala ñëwaguñ ak ndax coalition jot na la ñuy resté wala beneen coalition lay doon. non bu leen gaawantu c'est-à-dire que nga ñun yàkkamtiwuñu mm-hmm. dañu respecté sénégalais yi aussi doo ñu gis ñu jékki-jékki euh, génn rek. Euh, daal ne way def nañ li def nañ lële non non no non ñun du ñu doxee noonu ci politique politique spectacle moo war a jeex ci réew mi gis nga politique muy gouvernement muy majorité dañu war a def politique boo xamante ne nii dañu respecter nit ñi sànq moom laa doon wax ci tubaab président Macky Sall dafa mel ne ak ñi ko wër li nga xamante ni mooy seen stratégie mooy wane ne engagement politique maanaam dugg ci politique du du sérieux yi sax déjà dañu commencé woon ŋàññi politique yi mais jamono ji ñu nekk nii dafa gën a garaaw te loolu nag bu amee rek réew mi day gën a na sax parce que bu boobaa nekk a a ràññee dem nañ mu di jamono ji yéen ñi ci des xëy na yéen ngi def lépp lu ngeen mën ngir mën a nëbbu loolu noonu ñu gis bi ku nekk di créer ay camp fële Wade di woote pour un front Ousmane woote pour un front yéen itam ngeen di jéem a copter ay nit est-ce que di bëgg a bokk ci làng gi rek ah non mais xam nga euh, loolu sax bu fekkoon ne loolu la mais kenn waruñu ko kenn waruñu ko reprocher parce que ñun aussi ni ñeneen ñi yaatale noonu la ñu war a yaatale deuxièmement euh, jàpp naa ne àndu nawle la ñu wax ñun ak ñooñu ay nawle lañ dañoo retrouver wu ci ay principe Sénégal intéressé ñu ñu dem ànd parce que booy xool élection présidentielle fi ñu jubu woon kuy xool rek xam ne euh, mbooloo mu bari wala xaalis bu bari wala jàpp ne kii dinañ ko fal président taxul woon mais ay valeur ak programme moo taxoon fiitam itam élection yi ñu jëm loolu la jiital ci efficacité politique intrinsèque parce que loolu moo rey Sénégal ànd te ànd bi du ànd dëgg moo rey Sénégal ñun loolu duñ ko def coalition jot na gëmul loolu tënk bu gàtt rek ci wàllum élection Amérique ndax ñi may def siñ sax que ni waxtu ñu cërale woon jeex na euh, Donald Trump euh, daaneel nañu ko Joe moo ko war a wuutu ci nguur gi euh, loolu ban jàngan nga ci am rawatina itam ci retombées yu nga xam ne war na ko am ci yeneen réew yu ci mel ni suñu bos loolu peut-être dinañ am beneen jamono ñu ci discuter parce que lu lu bëree bëree bëri dafay wone ne monde bi dafa changé Euh, Covid bi changé na lu bari passage yu Trump aussi changé na lu bëri ci monde bi jàpp naa ne loolu war nañ ko càmbar politique yi xam loolu lan la parce que nag jàpp naa ne ñun dañu am classe politique boo xamante ne aussi ñoo ngi ñuy diriger actuellement te loolu di xew ci monde bi am jeexital suñu dëkk amuñu ci jàngat bu leer te xamuñu yan disposition lañ war a jël pour que loolu ñu gën ci tiire suñu population Trump dem na mais demul parce que États-Unis presque moitié bi dañu voté Trump ça signifie que euh, ni ñu tëjoo woon ak loolu ñu gëm ne Amérique d' abord mm-hmm. dina continuer ñun nag Sénégal d' abord Afrique d' abord dañ ko war a teg matérialiser ko ci suñu politique mm-hmm. loolu moo ñu ci génne ñu di ko jaajëfal baax a baax docteur Abdoulaye ñaan ndekk njiital parti bi di Teranga Sénégal coordonnateur général bu comité exécutif national bu coalition jot na ñu di la jaajëfal di jaajëfal tam ñi ñu ci àndaloon ñëpp fii la ñuy yemale seen mi journée bu tey di jaajëfal Pape Gora Gueye Pape Samba ñoo nekkoon ci caméra bi moo Modou Fall ak Isaaxa Diagne ci wàllum régie bi Rahmatulaay Sarr ci réalisation émission bi la cant ak ngërëm ñeel na leen di leen dig daje beneen yoon ak beneen gan jërë ngeen jëf jërëjëf